son excellence Mohamed Yahya Teis di ambassadeur bu yees bi nga xam ne moo teewal république islamique bu Mauritanie fii ci Sénégal day door a jël fonction rek ne nag jéegoom bu njëkk mooy ñëw ci dëkk bu seele bi di Touba nemmeeku si Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides saafonte ak moom ziyaare ko waaye mu ñaanal ko ci mission bu yees bi nga xam ne moom la ko réewam di Mauritanie sas fii ci Sénégal mu war koo liggéey. son excellence Mohamed Yahya Teuss nekk diplomate bu mag boo xam ne jaar na ci réew yu bëri laata muy ñëw fii ci Sénégal ndax jotoon naa teewal réew Mauritanie ci Angleterre Londres ak ci Niger ak yeneeni réew mu nekkit jàngalekat bu mag a mag nekkoon professeur université ci université yu gën a mag ci àddina bi bi mu ñëw nag fii ci Touba mi ngi ànd ak premier conseiller di Sidi Mohamed Wuld Aminu ak ki nga xam ne moom moo jiite communauté mauritanienne bi nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal waaye it beneen délégation boo xam ne ne mooy communauté mauritanienne bi nga xam ne ñoo nekk fii ci Touba Mbacké ambassadeur bi dem na it ci fi nga xam ne moom moo di ci grande mosquée bu Touba amal fa ziar boo xam ne mi ngi ko amalee ci barabu Cheikh Ahmadul Xadim bi bi mu agsee ñi nga xam ne ñoo di waa daayira muxaddamatul xidma bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci jumaa ji ànd nañu ak moom encadré ko ngir mu amal ziar yi nga xam ne moom la war a amal ci bërëb bu sell bi ànd kook mboolem délégation bi nga xam ne ñoo ko doon gunge. ambassadeur bi dem na fi nga xam ne moom moo di ci complexe Cheikh Ahmadul Xadim di daara ji nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di liggéey fii ci Touba ne sàkku xam-xam ak yar rek moom moo ko tax a jóg moom ambassadeur bi mu amal fa visite bu yaatu boo xam ne leeral nañ ko lépp loo xam ne moo jëm ci complexe bi liggéey yi nga xam ne moom lañu fi naal waaye it amal nañ fa jotaay bu yaatu boo xam ne weccante nañ fa ay xalaat digganteem ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéeyub université bi te sëriñ Ahmadou Badawi Mbacke moom Cheikh du Fadal jiite leen muy waxtaan woo xam ne lépp xam moom moo ko laloon ginnaaw bi mu jugee ci visite bi mu doon amal ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi son excellence Mohamed Yahya Tees dem na ci daara Hizbut Tarqiyyah mu nekk daara ji nga xam ne moom la leen sëriñ bi boole ngir ñu waajal fa bernde yu am solo yoo xam ne moom lañ jagleel ambassadeur bi ak mboolem délégation bi nga xam ne moom la àndaloon bi mu agsee dalal nañ ko tatagal ko waaye jébbal ko ay bernde yu yaatoo yaatu yoo xam ne lépp ñu ko amalee ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru ci teral gan gi nga xam ne ganam la waaye gan fonk la ginnaaw bi mu jugee ca daar hizbut délégation bi ñëw fi nga xam ne moom moo di ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides ñëw ziyaare si ko sàkku ci moom ñaan weccente ak moom ay kàddu muy kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko ci jotaay bi lii mooy visite bi nga xam ne son excellence Mohamed Yahya Teyes di ambassadeur bu yees bi nga xam ne république islamique bu Mauritanie moom la yebal fii ci Sénégal ngir mu nekkal ko fii ñëwoon fii ci Touba doon nemmeeku si sëriñ bi ziyaare ko waaye mu ñaanal ko ci mission bu yees bi nga xam ne moom la ko am réewam sas mu war koo bay fii ci Sénégal gan gi nag bi mu agsee fii ci Touba sëriñ bi mu ngi leen boole woon nag sëriñ Ahmadou Badawi Mbacke moom Cheikh Ahmadou Fadal ak sëriñ Mouhtala Bousso ak sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ Mountakha Mbacke Bachir ak waa daara Hizbut Tarqiyyah yi nga xam ne ñoo waa jël lépp loo xam ne moo jëm ci bernde yi